te mu nangul leen seen aj ñaan yañ fay ñaan yépp yal na ko yàlla nangu di ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi te seenum xel yépp nekk foofu ci baytilaayil xaraam yal na yàlla nangul leen defal leen yéene yow tedd te boole ñu sàmm tabaski gi ñu mal yal nañ ci àgg ak jàmm li ci nekk ci aw yiw yépp ñu màng ko ñaan suñ borom subhaanahu wa mu dox suñ diggante ak seytaane dox suñ diggante ak lépp loo xam ne day yàq ay jëf ndax am na koo xam ne noonu nit la te mooy saytaane lépp loo xam ne ak jaamu yàlla la day dox digganteem ak jaamu ga ci jéem koo yàq kemt kàttanam suñ boroom subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne bu ko tënkee kum ko tënkal say mbir jub ndax da amati ci yow benn sañ-sañ moo taxoon mu ne inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan seytaane moomu nit day aji mu topp ko ca aj ga di ko jax-jaxal ba yàq ak ajam waaye moom seytaane moomu nit day nekk ci waajtaayu tabaski mu fekk ko ca di ko jax-jaxal ba du ca am dara dëgg-dëgg boo rombee dëkk bi tey li ñu yeew ci ay gàtt di ko jaay ci ak jur maanaam ay xar léeg-léeg nga romb foo xam ne lañuy ñuy lakke xar yi lañ fa teg di ko jaay nga romb ci atelier yi téyeer yi nekk tubaarkàlla ñoom itam ñu nekk ci di yëngutu commerçant yi noonu nga ne waaw ñii lu ñuy waajal ñu ne la ak jaamu yàlla la ñuy waajal lu ñuy waajal ñu ne la seen sunna soo xam ne moom la yàlla sunnaal jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom la ñuy waajal danga naan ñii de xanaa buñ doon waajal farata kon àdduna tukki waaye nag ci kaw bu doon ne ci contexte jaamu yàlla la dugg te aada génn ci waaye nag ginnaaw ak feet la ak feet moom day nuru ak feet ndax feetu moom lekk ak naan la tabaski ci feet yi la bokk waaye nag day feetuk jaamu yàlla day feetuk jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne bu ko nit ki jàngut dëgg-dëgg day jàpp ne xar mi borom bi moo ko xéewalal tàggatal ko ko mu rey ko rek lekk donte xéewal la tàggat la yu la borom bi subhaanahu wa taala tàggatal waaye nag dafa am lu mu ëmbaale ci ay maanaa yu baree bari ci moom tabaski ci dégg ndigal goo xamante ne daanaka buñ doon wax ne am na lu muy jàngale mooy dégg ndigal danañ ci ñëw incha allah waaye ki nga xam ne ku waxtaane tabaski danga ko waxtaane muy ibrahima alayhi salaam ak doomam ja ismail daa mat a bàyyi xel ndax suñ boroom ba muy sélectionné jàmbaar ya di leen boole ci ab groupe inna allaha astafa aadama wa nuuxan waaye wa aala ibrahima kon kër ibrahima moom boroom bi subhaanahu wa taala man nga ne ña fa nekk ñépp la sélectionné ndax jàmbaar guñ jàmbaare muy ibrahim doomam ja ismail doomam ja isxaaq ismaila nag mooy taawu Ibrahima te ci moom la Ibrahima doon jàngale borom bi jaarale ci moom di jàngale ndigal ak niñ ko war a jëfee ak niñ ko war a déggee waaye itam di jàngale bëgg borom bi subxanahu wa taala ak góorgóorlu ci ay ndigalam moo tax ma ne bala maa ñëw ca tabaski nga dëgg-dëgg ca biir daañu jéem a junju lenn ci dunduk Ibrahima alxalil alayhi salaam moom. ak ya nga xamante ne làmboo na ko ci ak dundam ñu mën koo jàngat ci yoo xam ne ay waaraate la yoo xam ne ay njariñ la yu baree bari yoo xam ne mu ngi ca biir ndax suñu boroom moo ñu digal jaarale ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko nanga topp yoon wi Ibrahima jaaroon li muy tegtale mooy yoon woowu neex na yàlla lool millata abikum Ibrahim la ko wax yoon wi nga xam ne ca seen baay ba Ibrahima jaaroon yàlla nee na ku ci jaar ma bëgg yow kon war nañoo xam kan moo nekkoon Ibrahima tuuti ndax ñu mën koo roy donte yonent bi alayhi salaatu wa salaam lañ ko joxoñ ñun ñu joxoñ ñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax suma aw xaynaa ja ilayka la ca teg anit tabix millata Ibrahima xaniifa am beneen boo xam ne dafa wax ne xadd kaanat lakum booba nag moo ñu ci dugal ñun ñëpp. am na daal lu leen ñeel yéen ñëpp ci Ibrahima ñu ne ko lan la mu ne roy gu rafet Ibrahima daal model la model bu rafet rafet mooy Ibrahim na ngeen ko roy lan lañ koy roy da caa bokk ci loola wéetal gi nga xam ne moom la Ibrahima doon wéetal boroomam ci jamono joo xam ne wéetal ci borom bi jafe woon na lool ndax dafa judd ci kër goo xam ne ña ngay yett ay xéram di ko jaay di ko wooyee yàlla. mu judd ci réew moo xam ne la fa nekk ci ay yàlla yuñ samp di ko jaamu kenn xamul num toll mu judd ci jamono joo xam ne jaxasoo na lool ba nit umpule kan mooy moom nit bay jël lu kilifa di nangu mu di ko yilif nga xam ne li ñuy wax wéetal borom bi ak li ñuy wax pas-pas ak jikko yu rafet daanaka rek moom la Ibrahima mën a taxawal muy loo xam ne moo koy génnee ci lëndëm googu waaye ba jamono jii tey kuy roy Ibrahima pas-pas boobu ak wéetal borom bi subxanahu wa taala moo la mën a génnee ci lëndëm yooyu nga nekk moo la mën a génnee ci lëndëm yooyu nekk moo tax Ibrahima bi mu déparé ngir fas yéenee topp dëgg li ko njëkk a gàllankoor mooy ab fameem ci boppam baayam taxaw ndax mooy way juram moo ko jur moo ko war a teete teg ko ci yoon waaye teguwut ci aw yoon. xam nga loolu léeg-léeg mu gàllankoor ñu bari maanaam yow nga jàng peut-être yaa gën a informer say parents yaa leen gën a xam yow lii ngay bëgg a dugg li ci nekk ci ay njariñ waaye ñoom ñoo yor baatu kilifteef gi ñoo yor baatu kilifteef gi muy ñaari yëf yoo xam ne faaw nga xam ni nga koy ni nga koy teeree lu ko moy rek sa dund yàqu ndax ñoom danga leen di yóbbaale waxuñ la ne la nga dem bàyyi leen Ibrahima gis ne penc mim dëkk. ñi ngi samp ay bant di ko jaamu di ay jaamukati xërëm di ay nit ñu doyadi mu fas yéenee won loolu ginnaawam te ay waajuram bokk ci moo tax suñ boroom doon wax naan illa xawla ibrahima li abihi la astaxfiranna na lakk ibrahima dem na ba naan baayam danaa la jéggulul danaa le jéggulul moo tax bi mu waxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ñu ñun tam ne ko roy leen ci yonent bi alayhi roy leen ci ibrahima mu ne ko ba mu des nag ci étape boobu falaa taqtadu bihi fi haadihi al xaal bil istixfaari lil musrikiin bul ko topp mukk ndax Ibrahima demoon na ba ñeewante way juróom ak lu demee noonu taxoon sax mu wax way juram ne ko danaa la jéggul fa in istixfaara Ibrahima li abbi innama kaana an mawcida wa addaha iya fa lamma tabayana lahu annahu adduwun lillah tabaraa minhu kon Ibrahima am nay jamono mu jàpp ne baayam lim nekk ci jaamu ay xiram njuumte rek la waaye du loo xamante ne moo ko tey mu ne ko danaa ñaan sama borom mu jéggal la bàkkaar yi nga def kon daf ko ko dig danaa ko def waaye defagu ko laataa mu koy def mu leer nañ ci moom ne ñoom ñii kat ay nooni yàlla lañ maam dañoo bañ yàlla ak lépp lu ca aju Ibrahima daal daal di dañ ci ñoom ba wecc waaw summeeku te ca ñoom ba set wecc mbubum lépp loo xam ne mooy dox seen diggante kon dangay gis ne suñ borom subxanahu wa taala tànn Ibrahima def ko mu nekk xaritam am na fu mu jaar moom ci ay yoon yu bari yoo xamante ne ay teraanga la bokk na ca loolu génnee ci Ibrahima ay sëtam nekk ay yonent mu wàccee ci ñoom ay téere xeet wi nga xamante ne ñoo gën a tedd ci xeeti Eh, ci xeet ci àdduna borom bi subhaanahu wa def ko mu jaaree ci moom man ngaa jël eh, néeg bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk waaye itam mooy ki nga xam ne mooy banu israil ndax ibrahim moo jur isxaq isxaq moo jur yaqub yaqub moo jur is moo jur muusa muy famille boo xam ne famille famille ñu tedd lañ ñu yàgg a baax Ismaayil door ñëw nga di ko topp ba ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu teraanga la joo xam ne suñ borom subxanahu wa taala defal na ko Ibrahima ci ay teddanga ay karaamaat yëmut ci loolu Ibrahima la suñ borom defal teraanga mu tabax kaaba gi mu yëkkati kaaba gi ndeysaan suñ borom defalaat ko teraanga yi Ibrahima dem ba màggat ba naagu ci ne dootuma amati doom suñ borom may ko doom. loolu nag taxoon xol bi fees dell ak mbëggeel ci doom ji xam nga tey am na koo xam ne amagul doom day ndeysaan yal na yàlla jàppale leen mu dem ba toll ci at yoo xam ne day ñaan doom imaginer rek bu amoon jenn doom ni mu koy bëggee Ibrahima nag ni mu bëggee woon Ismaayila ëpp na waaye borom bi subxanahu wa taala moo bindoo noonu ci waayam da koy teg ay nattu te bu lay nattu ci li nga gën a bëgg la lay nattoo waaw borom bi du nattu nit ci lu mu bëggut dalay nattu ci li nga gën a bëgg comme doom ji la gën a bëgg mu nattu ko ci ne ko na ko rey danaa ci ñëw ci bu may waxtaanee dëgg-dëggi diggante boobu ak sew-sew boobu li ci nekk ci ay nattu waaye ma gën laa xamale ak Ibrahima ba noppi yonent yàlla Ibrahim bokk na ci teraanga yi ko suñ boroom defal moo yëkkati ko ci xam-xam Ibrahima doon ko am xam-xam intellectuel waaye doon koo xam ne ku am yaqiin la ku am yaqiin maanaam ku dëgër la gëm boromam subhaanahu wa taala waaye nag loolu yóbbe woon na ko ci mu am lay wu jub mu am ay preuve moo tax suñ borom ne wa kadalika nuri ibrahima malakuuta samawati wal ard wali yakuuna minal muuxinin suñ borom nee na ibrahima ñoo ko woon ñoo ko woon moomeeluk asamaan ak suuf sekkare ya fa nekk ñoo ko woon lan lañ ci jublu mooy bañ mu am sikki sàkk suñ digganteek moom bañ mu am sikki sàkk suñ digganteek moom kon Ibrahima mooy koo xam ne mësta am dut ay dut yooyu gaaru ko digganteem ak boroomam ndax bi mu tàmbulee rek lépp loo xam ne mën naa indi sikki sàkk digganteem ak boroomam daf koo éliminer daf koo éliminer moo tax mu nekk layu suñ boroom subhaanahu wa taala nee na Ibrahima samaaw lay la wa tilka xujjatunaa aataynaaha Ibrahim ñoo ko joxoon Ibrahim ala xawmihi narfau darajaatim man nashaau inna rabbaka xakimun alim ibrahim bëgg googu nga xam ne moom la bëggoon xam-xam moom ibrahim bëgg googu nga xam ne moom la bëggoon a wóolu yàlla ba du am ci moom déng-déng moo tax lu ne laaj na ko yàlla ndax suñ borom régleel ko problème yooyu mu door a mën a jàll moo tax suñ borom nee nañu méthode ibrahima daal neex na ma ndax moom demoon na diwut wut yàqin benn bi sax mu ne suñ borom damaa bëgg nga won ma nan ngay dekkale ku dee waaw yàlla damaa bëgg nga woon ma nan ngay dekkale ku dee déggal wax jooju nan ngay dekkale lu dee lalaaj yàlla waaye waxu ko yàlla ndax dangay dekkal lu dee ndax rabbi arinii kayfa tuxyil mawtaa kayfa tuxyil mawtaa bokkut ak a tuxyil mawtaa bi mu ko naan kayfa tuxyil mawtaa yàlla nooy dekkale ku dee Ibrahima xam na ne dekkal ku dee moom mën naa nekk yàlla dana ko def moom gëm na loolu amatul problème ci loolu loolu moom réglé wu na ba noppi li mu bëgg a xam kay mooy nu ko yàlla di defee maanaam defin wi <laughs> waaw defin wi loolu la loolu la bëgg a laaj nga xam ne benn recherche scientifique la bu xóot boo xam ne moom la Ibrahima dugal foofu moo tax suñu borom bi mu ko waxee ne ko awalam tuumin pour bëgg affaire bi gën a leer da koo gëmut parce que bu ne woon atuhyil mawta buñ ko nee awalam tuumin du mën a wax balaa waaye comme gëm na ko ba noppi mu ne yàlla ah kay gëm naa ko gëm gu wér indi na xal xalbi damaa bëgg rek am nag euh, euh, benn benn dal damaa bëgg am dal waaw bañ a nekk ci ay sikki sàkka bañ a nekk ci ay xalaat waaye ni ma ni ma gëmee ne da ko def ma xam noo koy defee loolu rek laa bëgg a xam <laughs> suñ borom jaar moom ci ay mbir fa xus arbaata min a tayri fa surhunna ilayka summa jaala ala kulli jabalin minhunna juz'a summa dohunna yatinaka saaya waalam anna allaha azizun hakim borom bi ne ko jëlal ñeenti njanaaw njanaaw mooy lu ami donc nga rey leen def leen ay saam teg leen ci kaw xeer yi nga woo leen nga ne picc picc jan euh, euh, donxam yam amoon ak i laafam yëpp booloo nga ne ginaar ginaar lam amoon yëpp booloo nga ne kinaara kinaara yam amoon yëpp booloo ji nga ne pitax pitax yam amoon yëpp booloo ji mu ne naat yam amoon yëpp booloo ji suñ boroom ne ko xanaa xam nga ne nag man sañ naa lu ne te lu nekk itam am naa kàttanu def ko mbokk yi Ibrahima jaar na foofu ak borom bi subhaanahu wa taala ci laaj yàlla damaa bëgg nga woon ma nan la ñuy dekkalee lu dee déglul bu baax nag yii nga xam ne yëpp yàlla defal na ko Ibrahim ndax moo lay may boo agsee ba ca Tabaski suñ borom ne ko reyal sa doom ji nga xam ne Ibrahima ku gore la ku sérieux la ndax fi yàlla jaar ak moom fépp bu ko reyloo doomam ji waru cee teg baat <laughs> waru cee teg baat moo tax mu doonoon ko amuk dogu moom Ibrahim bi mu xamee boroomam gëme ko nii mu am dogu ci mën a topp yàlla jox ko worma dëgg-dëgg ji nga xam ne moo aju ci topp gi looloo ko yóbbee mu mën a gàddaay gàddaay ga nga xam ne moom la gàddaay jóge fa mu jóge ba dem fa mu dem maanaam jóge ca baytul maqdis dem ba ardul xijaas te mooy màkkatal mukarram yóbbu fa soxnaam ak doomam dogu googu mu am dogu ci mën a topp boroomam moo tax bi ko suñ boroom ne rendil sa doom ji mu mën a taxaw ci dem rend ji ko dogu googu mu dogu moo tax bañ ko guuta mbaayee sànni ko ca sawara wa mu am dogu mën a dëgër ba saalitut benn yoon kon moom ku mënoon a dogu la ci diggante bi nga xam ne moom lay topp boroomam subhaanahu wa taala bokk na ci xéewal yi nga xam ne suñ borom subhaanahu wa taala xéewal na ko Ibrahim te muy xéewal yu rëy ndeysaan mooy may ko njaboot may ko may ko may ko ay doom may ko ay doom moo tax Ibrahima santoon ci boromam subhaanahu wa taala alhamdulillahi alladi wahabali alal kibari ismaila wa isxaaq inna rabbi la samiu du'a mbokk yi Ibrahima nee na maa ngi sant yàlla mi nga xam ne <laughs> moo ma may ci bi ma màggatee bi ma demee ba màggat ba jeexal kattan ñu jàpp ne waratuma am mën a am doom ci la ma may Ismaayil may ma Isxaaq mel ne ku naan ñu ñaan leen ko nag ñaan leen ko yàlla nañ ko ñaan suñ boroom ku mën a nangu ñaan la ku mën a nangu ñaan la waaw yàlla maa ngi sukk ci sa kanam di la ñaan sama soppe yi nga xam ne ñoo may déglu te toll ci seen néegu sëy di sëy te benn yitte dong doon seen yitte mooy am njaboot maa ngi lay ñaan yàlla na nga leen may njaboot ci barke alxuraan ni nga ko maye woon Ibrahim fekk ko mu nekk mag ni nga ko maye woon euh, Zakaria fekk mu nekk mag maa ngi lay ñaan nga mayee ko noonu ñii nga xamante ne mageeguñ te yow yaayor kàttanuk am doom may leen ko ci nam gën a yombe tam doon doom yu baax a baax a baax ba tegu ci tànk yi nga xam ne moom la ñuy tegu woon yàlla mën na ko yàlla ko def li tax ma ñaane ko noonu keroog bi Sakariyaa ñëwee ca appartement ba fekk Mariama ci waxtu wii Mariama yor ay orange ak ay mandre yooyu te du waxtoom ci période mango lañ nekk Zakariya ne ko Mariama foo jëlee lii mu ne ko yàllaa ma ko jox Zakariya moom lim njëkk a xam rek mooy gannaaw yàllaa ko jox yàlla am mayeekat la du ma sax di sikki sàkk dama koy ñaan doom léegi daal di koy ñaan doom suñ boroom may ko ko ma ne booy topp bind bi nag di déglu waxtaan wi bañ ne la Ismaay Ibrahima ngi sant yàlla ci ne moom dem na ba nekk mag mu màggat di bëgg am téeméeri at suñ borom door koo may doom bu dëgg-dëgg nag yàlla moomu mooy maye. te mane na ko nu ne ñaan ko ko tarafet njort bàyyee ko sa bopp subhaanahu wa taala moo tax Ibrahima ne yàlla maa ngi lay sant maa ngi lay sant maa ngi lay sant lan laa lay sante yow mi nga xam ne yaa ma may ci bi ma màggatee Ismaayil ak Ishaq daan nañu inna rabbi sama borom sama borom ngand moomu la samiu du'a kuy dégg ak ñaan la ku ko woo mu wuyu la waaw ku ko woo mu wuyu la jalla jalaaluhu wa azza kamaalu nañ koy ñaan nañ koy ñaan moom maye rek lay liggéeyee maye rek maye na bay may nit lum ko ñaanut may na bay may nit lum ko ñaanut te doom ci xéewali suñ borom subhaanahu wa yi muy defal nit la bokk ci xéewal yi muy defal nit la bokk xataa ida balaxa balaxa asuddahu wa balaxa arbaxiina sanna xaala rabbi awdini an askura nixmataka allati an'amta alayya wa ala walidaya wa an axmala saalihan tardaahu wa aslix lii fi zuriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin doom borom bi nee na bu nit ki demee ba mësër ba dëgër am ñeent fukki at am kàttan daa war a wax yàlla ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma xel mu ma la mën a sante hmm. ndax yow mi nga xam ne mënoon na maa bañ a judd am na ñu bari ñu maase woon ak samay way jur nekkoon ci ay néegi sëy amuñu doom nga def man ma judd si buru yu metti jaar na fi ak i ŋas ak i xuréet ak i njàmbutaan xeeti feebar yi wàll yëpp dal na fi nga musal ma ba ma mucc ci yëpp ma màgg nii taxaw am kàttan tey mën a daagu di wéy solu génn taxaw ci seetu bi mu rafet mënuma laa sant ba cant gi mat maa ngi lay ñaan nga may ma xel mu ma la mën a sante waaye nag maa ngi lay ñaanit nga may ma xel mu ma mën a sante samay wayjur samay wayjur maa ngi lay ñaanit nga dimbali ma ba ma mën a jëf-jëf ju baax joo xam ne da nga ci kontaan seet tëtët njaboot gis nga bi muy sant bi mu tegee yàlla rek wayjur la ci teg yàlla nañu yàlla may njaboot yu barkeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ida maata al insaan wala ibnu aadam bu doomu aadama ji faatoo jëfam yëppay dagg waaye mu boole ca doom ju fi def di ko ñaanal kon njaboot baax na waaye nag gu baax njaboot baax na waaye gu baax Ibrahima kon sant na boroomam lool ci njaboot gi mu ko may ndax xéewal yi mu yëg te xam ne njaboot moo koy maye bokk na ci jagle yooyu mu am moom Ibrahim ak ngëneel yooyu mu am te ñu war koo jàng ci ak dundam ndax ñu gën koo xam mooy barab bële nga xamante ne mooy màkkatal mukarram ca kaaba ga barab bañ koy fàttalikoo tey ma nga fa ñi di ko wax maqaama ibrahim wa ahlu baytihi fi ibaadaati rabbihim wa imaanu billahi wa rusulihi wa xath ala iqtidaai bihim fi kulli axwaalihim diiniya ibrahim doon koo xam ne kon taxawal na borom bi subhaanahu wa ci ndigal lim ko digal ci ne ko na yëkkati kaaba gi tey boo demee foofa da nga gis ñu ne la wattaxidu min maqaami ibrahima musalla mhm. boo demee tawaaf ba noppi li ngay njëkk def mooy dem fa ibrahima taxawoon julli fa ñaari rakk ca maqaama ibrahima suñ borom it digal ko ne ko nag na laabal place bi place boobu nga xam ne mooy masjidil xaram na ko laabal ci sobe ya fa nekk na ko laabal ci ak mooy yàlla mooy na orienté nit ñi bu ñëwee nan lañ fa war a jaamoo borom bi subhaanahu wa taala nan lañ fa war a sete nan lañ war a comporté woo wa tahir wa tahira baytiya li taa'ifiina wal aakifiina war ruka'i sujuudi na barab balaab loolu rek la loolu di tekki mbokk yi yonent yàlla ibrahim jàmbaar jooju mi ngi noonu buñ tollee ci jamonoy tabaski léeg-léeg ñu war a delluwaat lenn ci ak dundam léeg-léeg ñu war a delluwaat lenn ci ak dundam door a ñëw nag ci mën a waxtaane dëgg dëgg li nga xam ne mooy tabaski ndax suñ borom nee na jàmm yàlla na ne ci ibrahim kon jàmm yàlla na ci ibrahim salaamun ala nuuhin fil alamin wax na ko daal wax nag salaamun ala ibrahim door a wax nag inna kadalika najidil muhsinin kookoy ibrahim alayhi salaam ku déggal borom bi subhaanahu wa taala ku góorgóorlu ci muñ ay nattoom waaye nag ku tegoo itam coona ngir samp tawxiit moo tax suñ borom ne ñu Ibrahima nekkut ab yahut dub siif Ibrahima nekkut am nasaraan Ibrahima dub chrétien ñu ne ko ibulum doon mu ne Ibrahima xanifan muslima ku diggu doomu la woon wamaa wamaa kaana min al musrikin mësta bokkaale ci ñi nga xam ne dañuy bokkaale suñ borom subhaanahu wa taala buñ la nettalee ay jaar-jaaram ak fi mu jaar fépp bu ko alxuraan di jeexal moom li muy wax rek mooy ulaika alladina hada allah fa bi hudaahu muqtadi ñoo ñii suñ borom di tudd te muy gaa yu baax yooyu mooy ñi nga xam ne nag suñ borom jubaloon leen ñu tegu ca jub ga rik waaye roy leen leen ci jub googu nga xam ne moom lañ tegu Ibrahima daan na wax naan afa taabuduuna min dunillahi maa laa yanfaukum shay'a wala yadurukum ndax dangeen fi bàyyi yàlla di jaamu ji loo xam ne du leen jariñ dara loo xamante nii eh, ay lor rek la leen di indil mënu leen a indil njariñ mënu leen a fegal lor kon lu ca nit di jaamu di foyee ji boppam mbokk yi ñu bàyyiwaat xel bu baax léeg-léeg événement yi ñëw ci àdduna borom bi da ko indi ngir nga jaamu ci ak nga roy ci rikkuwaay bul ci foye sa bopp ba di ci yàqoo yàlla nañu yàlla may ñu àgg ci tabaski yeeg jàmm te mu jàpp ndilal ñëpp luy tax ñu mën koo taxawee niñ ko war a taxawee may ñi nga xam ne ñoo dem ci aj ga ñu àggale ak jàmm may ñu ñu fekkee bi bisu arafa te man koo taxawee ñoom fañ nekk ñun tam fi ñu nekk ñu mën a ànd ak ñoom ci woor ko ak yi nga xam ne moo ci aju lépp ñoo ngi leen di santaat di leen gërëm te di leen siyaare baax di leen baalu àq di leen baal ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal di fedd feddli suñu cofeel ci yéen tey sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu ñun tam ñoo ngi leen di ñaanal jaajëfal Oustaz Alioune Sall moom la ñu bàyyee toogu bi mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñëpp déglu ko ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu sàmm ko te sàmmuñu ñaan ko mu defal ñu jàmme àdduna ak alaaxira defal ñu suturas àdduna ak suturas alaaxira seen mbokk Mbàkke Sylla la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.